Karangé, té té tamit lépp lo xamné ne ne mooy employeur bi lépp lo xamné yoon daf ñu ko ci euh, euh, karangé ak saytu euh, condition wu liggéeyu salarié yi ñu ko ci jublu ak ci anam yi war que itamit dundal Sénégal rek du réponse mais dundul ko tamit ci condition de travail yi war ci condition de santé ak sécurité travail yi war loolu moo tax tamit tey sujet boobu jot nañ ko fee aborder jot nañ ci waxtaan ci nu mu gënee. alors ci ci présentation ma ko waxee loolu ci wareefu euh, euh, këru liggéeyukaay yi la bokk loolu tamit ci wareefu képp kuy euh, képp kuy accompagner salarié yi loolu ci ay wareefam la bokk que mu protéger ko maanaam que mu aar ko ci lépp loo xam ne ne mooy danger bu wër liggéey bi nit nag buy liggéey des fois du dem ak xel des fois du dem ak euh, euh, euh, consigne ni mu yëwee rek noonu lay defee loolu moo tax teg ay procédures yu leer teg ay jumtukaay yoo xam ne ne dafay aar nit ki ci jëfinam maanaam bu waree def dara nga def le tout pour que mu bañ ko def maanaam nga bloqué ko ba du ko def maanaam mooy procédures yi mooy autorisation yi mooy contrôle yi mooy itamit sensibilisation yi wax ak nit ñi yee leen yee xam xamal leen lan moo tax lii yëg lii yëg lii ñu koy def ci loolu la CTS bi nekk ci loolu la caisse de sécurité sociale nekk ci loolu lay tamit ñun ñii di këru liggéeyukaay yi ñu war leen ci fekk pour di waxtaan ak salarié yi moo tax ci ci jotaay bi ñu nekk nii gis ngeen fi nekk ay représentants wu salarié ñoo ngi fi ay syndicat wu salarié ñoo ngi fi te ñoom itamit seen wax ak ñun ñii nga xam ne ñun ñooy employeurs yi li ñuy wax benn la mooy il faut que ñuy sensibiliser il faut que salarié bu comprendre ñu xamal ko ne que lii pour aar la la

casque bi duma ma déglu émission bi sama portable bañ ko sol de pourtant lolu yëpp pour aar ko la donc ñun ci waxtaan comme ni ñu ko tàmm waxee ci lañu dem di sensibiliser nit ñi pour que ñoom itamit ñu fekk suñu ñu si ñun li di suñu objectif muy zéro accident dans les industries.